dal leen ak jàmm ci xibaar yéen kaay ñu door koog l'observateur gis li mu ci xëta mu njëkk ki moomul nag wi li ko jaral nag sàkkantuma laa ku moom nag wi jamono ji nag njiitu réew mi président de la république Macky Sall li ko jaral bari lool muy jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal bu ñu démb ci kàddu yi nga xam ne njiitu mi yëkkati ko ci biir yéen kaay bii di l'observateur njiitu mi di xam ne ne jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal lu ci kenn bañul bañu ko nag jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu di xam le ne kenn du nangu nag kenn koo xam ne day yàq jongante njiitu réew yi maanaam élection yi nga xam ne moom la ñu moo xam foo man di nekk moo xam nga nekk ci pouvoir bi wala sax nga nekk ci opposition bi ak foo man di nekk njiitu réew mi du ne moom ko xam ne nag jëm violence loo ci góobee nanga ko gar la turbine yéenekaay moom na xëy sampab la ndax njiitu réew mi est du day daganal lépp loo xam nuroog lu ni mel ndaxte mi ngi xam le ne ñi nga xam ne jóge ci yeneen parti ñëw ci parti bii di APR ñooñee bu ñu leen tuddee ay transhumance ne ah ne ñooñee daanaka ak déggoo moo am seen diggante maanaam ay xalaat yoo xam ne dafa déggoo jëm ci wàllu politique bu moom njiitu réew mi tamit moom la fekk ci enquête yéenekaay muy xam ne ñi nga xam ne ñëw jigee feneen ñëw ci moom bu yeboo naka lu nekk nañ ko xaar ndaxte bëri ay kàddu yu ñaaw ak yeneen yoo xam ne feneen ñëw ci ñoom waaye loolee bu mu leen découragé nañu gëm li ñu gëm te nekk ci li ñu nekk ñeneen ñi nga xam ne nag démocratie dafa dee de déet waay professeur waaw professeur ne jamono ji daanaka démocratie ni mu waroon mel réew mi ak loolee wuute na lool ndax récupération politique yi nga xam ne dafay faral di am maanaam ñeneen ñoo xam ne dañuy jógee ci yeneen parti di dem feneen loolee mën naa xajamal deru Sénégal mën naa xajamal tamit image Sénégal ci wàllu politique politique ak réew mi jamono ji fi mu toll laas yéen kaay di ñu xamal ne jamono ji kay kii def buzz mooy Aïda Mbodj waaw Aïda mu Bambay waaw gayndeeg Bambay gi moom Aïda Mbodj jamono ji moo nekk jën woo xam ne xam ne jotoon nañ koo seeti ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko loo xam ne mën nañ koo leeral ci waxtaan wa nga xam ne jot na ci seen diggante ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko ak Aïda Mbodj waaye daal ak lu mënti bu leer boo xam ne def na ko daal di xam ne ne kii lay xew ñi nga xam ne nag ñoo di politiciens nga ñenn ci candidat yi ñi ngi dem di waxtaan ak moom ak ne moo di Gayndek Bambey ñeneen ñu seeti keneen waa avenir Sénégal bi ñu bëgg jamono ji nag ki ñu seeti moo di kenn la mu di Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko Sonko Sonko bi ñoom la ñu seeti daal di fas yéene lëngoog moom daal di fas yéene joxante loxo doole seen i bëgg-bëgg ngir bu ñu eggee ci jongante njiitu réew yi ci nga xam ne moo di Ousmane Sonko daal di jël ndam la ba léegi ci yéenekaay bi di laas la ñu Sonko di xam ne ne élection yi nga xam ne moo di Khalifa Babacar Sall moom mi fi jiite woon mairie bu Dakar te jamono ji mu yeewoo ca prison bu Rebeuss jamono ji bëri ay candidat yu xam ne ne nañu ne bëri ay candidat yoo xam ne jotoon nañoo fekk xaaf ca prison bu Rebeuss ngir waxtaan ak moom réew mi ku nekk li la yitteel source a moom li ko yitteel di xam ne démb moom Jurbel mburu amul fa déet waaye puna rek waaw source a di xam ne ni xalima ak Mor Mbaye Cissé yéenekaay bi di xam ne ne démb amul benn mburu boo xam nga xam ne moo di Jurbel li ko waral nga xam ne ñoo nekk foofee ñoo bankoon seeni loxo ne mburu du am ëpp xanaa xam ne ne démb daal tàngoon nga xam ne moo di Jurbel ndax nga xam ne ñooy lakkati mburu yi nga xam ne ñoo nekkee foofee gannaaw ak xam ne yëglu woon nañ ko amul xam ne wax na ci nag dañu koy grève maanaam fan boo xam ne duñu lakk mburu liggéeykat yi nekkee ci njaareem te yëngu ci wàllu mburu nee nag jamono ji jamono ji seen càkkutéef moo di farine bi nañu wàññi njëgu farine bi waaw farine bi nañu ko wàññi te nag mburu mi nga xam ne ñoom la ñuy lakk nañu jéem a xool ni ñu ko yokkee waaw kon boo njëgu farine bi ci suuf njëgu mburu mi ci kaw waaw liggéeykat ne ñun daal lu nekk la ñuy daj de lu nekk la ñuy daj de daanaka suñu liggéey bi amuñu ci dara loolee nag la ñu tax nag ñu daal di alerté ñi nga xam ñoo di kilifa yi waaye nag ba ñu leen ko waxee dafa mel ni dañoo tàngamlu suñu woote looloo tax benn fan ko xàppati ci njaareem ne mburu amul foofee waa njaareem noppi rek daal di jox ñi nga xam ne nag ñoo di waa Dakar ñi nga xam ne nag la di building de la république a ba muy a dox ci diggante Ama Baldé ak Siteu jamono ji ne combat boobee mbaa du mujjee niil waaw ah maanaam combat ba ndax danañu ko tëgg wala déet ki nga xam ne nag moo di promoteur bii di jëy production mi nga xam ne moo ci doon dox dafay xam ne ne jamono ji combat boobee daal bu matul du am daal bu watul xanaa keneen a koy tëgg waaye jëy moom boo watul génn na ci xelam lu tax jëy daal di xam ne ne man daal ñaari mbër yi ku ci nekk waxtaan ak moom waaye ba léegi amagul benn lu leer loo xam ne wax nañu ko maanaam kase ba fay nga xam ne fa ñu ko teg dafa kawe lool dafa kawe lool maanaam li nga xam ne njaari mbër yi ku nekk li ngay laaj mënuma ko cee def ci combat bi